écrasante majorité donc di remercier ñëpp di leen jaajëfal euh, notamment ñoo xam ne tànn nañ leen mun nañ ci citer Maymouna Bousso mun nañ ci citer également Mohamed Sall du MRDS mun nañ ci citer Marème Mbacké Kouloum Dioum ak ñoom Ami Mara donc ñooñu ñëpp ñoo ngi ci liste bi également di jëmmal alliés yi ci liste bi te bon mu doon liste boo xam ne reflet wu Sénégal la liste boo xam ne également reflet wu diaspora parce que diaspora tam ñu ñu war tànn tànn nañ leen dans les huit circonscriptions électorales législatives donc di wax ni processus boo xam ne yombul woon la mais gis nañ ni militants yi ont fait preuve de compréhension on fait preuve de dépassement on fait preuve de don de soi pour la patrie alliés yi également wane nañu ñoom itam gëm nañu projet bi et wane nañu tamit lu ëpp solo du c'est pas les personnes mais c'est la mise en œuvre du projet su weesoo investiture yi gis nañu liste bi déposé nañ ko jiital ci tout naturellement le président Ousmane Sonko nga xam ne une tête de liste naturelle nga xam ne en deux mille vingt deux moo jiite woon liste bi ñu fi ne woon nguur gi Macky Sall ak ay nitam si seeni pexe fexe ba génnee ko ci liste bi annuler suñu liste des titulaires donc tout logiquement moom nañu jiitalaat comme tête de liste nationale donc nga xam ne il te ñëpp xam nañu moom su ko jiitee la victoire est certaine la victoire est acquise par rapport également par à liste là gis nañ ni opposition bi jaaxle na tiit nañu bëggu ñoo dem ak élection ak Ousmane Sonko parce que en deux mille vingt deux élection législative daf nañu indi nañu pexe yëpp pour bloquer ko. supprimer suñu liste des titulaires. élection présidentielle yi pexe yu ñu amoon yëpp génnee nañ ko pour bloquer candidature am à l' élection présidentielle. ba ñu tànn président bassiru Diomaye Faye mu battre leen à plate couture au premier tour avec 54 virgule 28 pour cent des suffrages ñu ñëwaat yaakaar ni loolu jeex na puisque malgré lépp lu ñu def Pastef yegg si na pouvoir Pastef fal na président de la république premier Ousmane Sonko nekk premier ministre ñu ne ñoom tam ils vont persister dans la bêtise ils von persister si seeni i pexe yi ak seen i manipulation ñu ne également déposé waat nañu recours pour ne dañuy invalider la candidature du président Ousmane ñun ñëpp daf ree parce que su ngeen di fàttaliku ko ñëpp xam nañ ni il est électeur il est éligible parce que le 24 mars 2024 il a bele en bonne et due forme am carte électeur am am carte d'identité am en bonne et due forme dossier am complet weesu loolu ñu gis ni y a des décisions de justice yoo xam ne prononcé nañ ko en sa faveur maanaam justice moo wax ñuy rappelé wu décision bu juge Racine Thion ba nga xam ne moo topp ci juge Saba si fay anéantir lu ñuy woowee contumace te ñoo ñoo ko anéantir parce que contumace soo ko arrêté contumace ba jeex na yaakaar naa ne yooyu duñ ci delluwaat parce que sénégalais yi leeral nañ leen loolu comprendre nañu maanaam procédure yooyu ba léegi tey ñëpp ay procédures yee nañu wala ay pénaliste nañu Sénégal parce que maîtriser nañu dossier boobu ñu jóge ci loolu ñu ñëwaat seen bopp kenn laaju leen dara bëgg ñoo ne dañ ñuy neexal ne ñun nekkoon député à l'Assemblée nationale pour ñu voter ko mais buñ ñu neewee loi d'amnistie bi day couvrir ay crimes de sang ñu ne ñun loolu mënuñ cee ànd parce que loolu c'est un scandale ñoom seen bopp ñoo ne loi d'amnistie boobu ku mel ni Ousmane loi d'amnistie bi couvrir na ko ak keneen ak keneen euh, Bassirou Diomaye Faye ak ñëpp ñu nga xam ne woon maanaam événement yu amoon entre deux mille vingt et un deux et deux mille 24 ñoom ñoo ko waxal seen bopp déggul nañu Aïssata Tall Sall à l'Assemblée nationale dégg nañu président Macky Sall son discours à la nation mais au lieu ñuy gàttal maanaam seen gàcce ñu bëgg cee continuer mu wane ni ñii dañoo jaaxle ñii parewuñu ñii bëgguñoo dem élection parce que bu président de la république constitutionnel ne conseil constitutionnel annulé décret bi parce que ñoom pare wuñu dem élection mais président lu mu def yëpp daf ko wékk ci constitution article 87 de la constitution parce que balaa moo tànn date sax balaa moo dissoudre assemblée nationale saisiroon na conseil constitutionnel ba conseil constitutionnel jox ko xalaatam loolu su amee ba président saisir conseil constitutionnel jël décret am sur la base de lu ko conseil constitutionnel wax soo gisee ñu dem opposant yooyu dem saisiraat conseil constitutionnel pour ne conseil constitutionnel na annuler décret bi dafa mel ne dañu ne conseil constitutionnel na weddi boppam donc loolu amul sens amul njëriñ yaakaar naa dañu nekk di tardel seen bopp nekk dans la manipulation donc lu ñu gën a jaaxal mooy tey alliance bu nga xam ne alliance contre nature la du ma ne entre PDS ak APR parce que ñu bëre PDS nanguwuñ ko désolidariser wu nañ am na ñoo xam ne sax daf nañ seen du ma ne APR parce que ñu bëri nekk APR nanguwuñu alliance contre nature boobu coalition contre nature boobu mais alliance contre nature la entre Macky Sall et Karim ñoom ñoo doon accuser ne juges yi conseil constitutionnel dañ leen corrompre c'est les mêmes ñu doon accusé juge conseil constitutionnel leen corrompre dañ leen ger ñoom ñooy saisir waa conseil constitutionnel pour conseil constitutionnel prononcé wu donc mu war a jaaxal sénégalais ñu xam ne ñii dañuy tappale dañuy caaxaan donc seen recours bi maanaam recours tappalekat la recours caaxaankat la du dem fenn lu ñuy wax militants yi wax sénégalais yi wax sympathisants yi comme nu ñu leen ko waxee nañu focus ci élection yi préparer ko commencé campagne bi ak pré campagne bi sensibiliser suñu candidats yi nga xam ne ay candidats de qualité nañu liste ba nga xam ne liste de qualité la pour donner une majorité confortable au président Bassirou Diomaye Faye au gouvernement à l'Assemblée nationale pour que ñu représenté fa Sénégalais yi mu bañ a nekk Assemblée nationale Amadou maam Diop mu nekk Assemblée nationale bu bees boo xam ne ah duñ fa fekk ay ñoom sama collègue Abdou Mbow moom xam naa dina delluwaat si journalisme bi parce que gis naa fu ñu ko sànni si liste nationale bi xaw na sore te du ñu am loolu mais mu doon Assemblée nationale boo xam ne day refléter Sénégalais yi lu ñu bëgg ay débat de qualité ñu fay wax problème mu Sénégalais yi mais ñu bàyyi tappale yeeg caaxaan yi ñu fay def ak yëfu baana baana ñu fay def donc ñun loolu nañu ñu wax ne recours bi yaakaar naa ni jox nañ ko suñu avocat yi yaakaar naa bu ñu ko gisee sax dañu ree ñoom maître Bamba si ak yeneen avocat yi nañ ci tontu te conseil constitutionnel dina dire le droit incha allah mais yemuñ si loolu moo tax sax man ma tardé parce que sànq la ma conseil constitutionnel woo ne ma am nga am nañ fi beneen recours moo ma tardel ma daw dam conseil constitutionnel fon ne lu nekk la ñu ne ñu euh, yéen waa. waa recours bi waa kii ñoo ko déposé waat Karim Wade Macky Sall coalition Karim Wade Macky Sall moo ko déposé waat wane ni ñii dañoo tiit ñii dañoo jaaxle ñu yaakaar ni lu nee nañuy wax ñu ne ñun suñu liste des suppléants paritaireul maay maanaam liste ba respecté wul parité ñu jox ma recours bi ma xool ñu ne ku nekk ci liste bi ku ñuy naan vingt cinquième vingt sixième vingt septième position ñoom ñetti ñëpp ay góor nañu te ñoom am nañ ci ay firnde yu leer naññ ni ñetti ñooñu ay góor na ma liir leen ñu ne vingt cinquième ñu ne Mouhamadou Bamba Fall vingt sixième ñu ne Khady Gueye euh, vingt septième ñu ne Alioune Badara Badji léegi ñu ne Mouhamadou Bamba Fall góor la loolu nangu nañ ko ñu ne Khady góor la Khady Gueye Khady ñëpp xam ko bokk mujib nekk responsable ca Medina Wandifa département de Bounkiling kooku ñëpp xam nañ ko donc ça veut dire que ñii dañoo jaaxle ñii dañoo tiit xamatuñu fu ñu jëm léegi ñoo ngi feesal dellu conseil constitutionnel ay recours yu dul jeex donc nañu bàyyi caaxaan yi bëgg a bëre bañ bëre ñu préparer élection yi ñu dem élection ñun neewu fii pour bloquer kenn gis nañu processus bi processus bu transparent ñoo ngi jaajëfal ministère de l'intérieur ñoo ngi jaajëfal une fois n'est pas coutume la direction générale des élections puisque conduire nañu processus bi malgré délai yu gàtt yi ñëpp def nañu ku bëggoon déposer sa dossier déposer nga sa dossier ku bëggoon daf sa candidature daf nga sa candidature te daf nañ ci tolérance parce que mun naa ci wax dara parce que tey coalition yu bëri yu ngeen gis fii ba ñu avant minuit ay 17 heures fa jóge dañ fa fanaan ba yendu bàyyi leen ñu déposer seen liste te su ko neexoon ah mun na ne am na heure su jotee may nañ leen assez de temps donc da ngeen di forclos mais dañu may nit ñi ñi sax fekk na leen fa maanaam presque pratiquement daf nañ fa 24 heures ñu may leen temps bu ñu bëgg yëpp permettre leen sax jox leen ay euh, bureau jox leen ay imprimante ñu nekk foofu di wuti matin bi sax ñuy dem di wuti casier lépp nangul nañ leen ko donc lu si des mooy nañu bàyyi caaxaan yi nañu bàyyi ur yu dul jeex yi ñu ku nekk exposé sa programme sénégalais yi ku nekk exposé sa projet sénégalais xam ne cinq ans yi di ñëw vision deux mille cinquante président Bassirou Diomaye Faye nañ ko exposé si fan yii di ñëw le 14 semaine prochaine incha allah te si base boobu nañuy demee camp xam ne ñii am nañu projet